doo ma digal lu ma def doo ma tere lu ma bàyyi mm-hmm. boo sentir ni sëy bi fi la war a yem rek na fi yem mm-hmm. waxtu bu ma neex laay ñëw man ma waaw mooy mooy li ma la wax mm-hmm. waxtu bu ma neex laay ñëw su ma amee lu may doxi dama koy doxi tàggootuma damay yëgle mais nga baal ma loolu si lan nga ko teg ci li mën si boppam mën ku mën boppam jigéen bu ñaata jigéen a fi mën seen bopp non non lii ci biir fan la nekk seen jëkkër ah. c'est que li nga li nga xam ne débat bi est-ce que duñ ko bàyyi mu terminer rek après nga ñëw si sa temps euh, nga mën a nga mën a euh, <laughs> euh, expliquer nga ma ci barke bar Aziz nii du lu ak père nag ma wax la benn affaire mm. xam nga lu tax may sant yàlla toujours di julli ci yonent bi ndax yàlla yàlla teg na ma ci martaba boo xam ne li ma sax dafa bëreetul loolu moo tax exactement donc je dis et parce que yow boo mënee na ci réew mi. gis le contraire li may wax. man man na ci réew mi gis li may wax man aussi. mais en général ci li ngay wax ci faible ku góor ki wala ci faible ki ki amul la. maanaam kër lu mënti xew góor a ko war a yor góor boo négligé ba faible sa biir kër lu fa mënti xew yaa ko teg sa bopp. parce que da nga jàpp ne yor xaalis nit même boo yor xale bu jigéen bi bu yoree xaalis li ma toppee mooy sa ndigg nga ful laal ba moom mu lay fay ci sa ndigg. ñaar yooyu am mu lay fay ci sa ndigg c'est-à-dire maanaam comme yàlla may na la teraanga yëpp waaw xale bu jigéen bi yàlla may na la teraanga yëpp man góor laa da ma gis ma bëgg ma ñu wala bu ma gisee ba bëgg la ñu ànd mais doo ma jaay xaalis ndax toppee woo ko te yàlla rek tax uh-huh. en général doo topp ku góor koo xamante ni ah faiblesse ku góor ki ngay andi waaw ci faiblesse ku góor ki ngay am ba topp ko nit ñi naan lan la ko toppee est a que nga ñaaree am. Mhm. man maay góor ay yilif suma kër. Mhm. sama kër kenn du ma ko yilifa. Mhm. soit yow yaa yor sa xaalis nga génn nga dem foofu wala man mi yor ma génn dem xooli ba keroog may yor. ay ca Dieng. maa ngi jégalu yàggalu ndax am na lu wax léegi ba tudd ndig. maa ngi ñëw léegi boobu eggalewul wax bi. non c'est que xam nga dafa daw yow yow yow yaa ngi ci plateau bi doo wax. ñu ngi lay déglu. yow xam nga li muy expliqué kay moom jaara fi nga def. non non non non déglu rek waxtu nekk ak tontan lan moo tax nga ñëw ba foofu nga wóoyi. waaw bàyyi jàmm déglu non non non non non man dama ñeme. lu may wax lu ma wax dama koy. merci beaucoup donc ma gëm ne. mais gaawal daane nag yi ngay def nii. Ah. deful dara de deful dara de lu ma wax ñu dog ma. yëpp moo ko tey lu ma wax ñu dog ma. kii ragal la voilà très bien. ma ma ma revenir encore une fois. d'accord que ne euh, généralement waxuma ne li nga wax amul dama ne góor gu nekk sañ naa xool nit ba seppi ko xam ne kii ilif ko du yomb ma dem seeti ku ma mën a yilif mm-hmm. loolu ko kenn sañu ko. absolument loolu c'est d'accord nañ li nga wax. loolu laa wax waxuma leen moo tax ma ne du ko teg ci ragal. Mhm. pourtant loolu laa njëkkee de. Mhm. du ko teg ci da nga ragal jigéen yegg naa sax ma ne ma man prospère lu góor war a ragal si jigéen gisuma ko. waaw ah, yenn saa nga bëgg nit bëgg bëggeel boo xam ne yenn yooyu problème yooyu détail lay nekk ci yow lay am problème ya sa jabar bañ la déggal am na góor yi fi nekk yoo xam ne ñu ngi koy dund mu metti leen loolu te ñamuñu ma fas seen seen exactement la moo tax moom exactement waaw dañ na fi mm, mm, mm. suñu borom la waaw mun naa ne natt suñu borom mu wees ko donc bu mënoo koo bàyyi waaw moom laa non moom la mm-hmm. man li ngay wax dama la wax lu gën a dee uh-huh. gis naa ko gis ko gisati ko ku am jabar mu di la mooy ba ñëpp xam ne mi lay mooy te bàyyi woo ko. Ah, kooku waay waaw waaw très bien yow loolu loo loo tuddee loolu. nattu yàlla ah, nattu. loolu ah, nattu yàlla loolu mais am na. yooyu waay pros. li mu la wax am na. waxuñu ne amul. waxuñu ne amul am na. Ah, mais loolu du nattu yàlla. loolu mooy góor goo xamante ni gis nga am na yoo xamante ni nga xam ko. nga xam ko nga xam ko nga téye ko. mooy góor bu ñàkk jom góor bu ñàkk jom. benn par benn. non góor bu feebul benn par benn. papa ci pros lañ nekk dañu bàyyi pros daaneel la eh. s'il vous plaît. yaa woote peloton de. ayca merci beaucoup. non mais du ngeen déglu moo tax ngeen dégg dama wax encore xam nga man xam nga xëy na man li ma jàppee nattu yow jàppee ko nattu di gis koo xam ne nii saa yoo xëyee mu taxaw ci marta bay def lu la metti te mënoo koo koo bàyyi comme ni ko madame bëgg naa ko parce que effectivement toog naa ci plateau ba tax benn effectivement mbëggeel balaa neex nga bëgg ba dof am na toog moom voilà mais selon toi ak caractère bi gis yow joxal joxal joxal Aziz joxal Aziz joxal Aziz joxal Aziz man du ma mës a yeggal ndax Aziz. non mais selon eh, vous. Eh, selon vous. Ah. oui caractère bi ma la gisee nii je te connais pas je peux pas te juger. oui mais dans le caractère que j'ai vu vis-à-vous. oui ñaanu ma ko yàlla yàlla bu mu la dal. Mhm. yàlla bu mu la mës a dal. Mhm. mais si c'était vous. à votre place nooy. defee dama koy wàcc mu dem wax ko ko. mais li la ñu wax sànq nga ne nga ne nga ne nattu yàlla li ñu wax sànq de moom day contredire boppam. Ah, li mu ko laaj c'est question très bonne. non li ñu wax sànq moom la tontu tontu ko ci question bu dee man damay bàyyi. Mhm. bu dee keneen mën naa bañ a bàyyi. ndax nattu la. waaw ni ko waxee parce que nattu la. mais prof loolu yàlla dina la nattu si yooyu. Ah, waaw yàlla lu leen la lay mm-hmm. sa jabar may jikko muy mooy nii nga continué dox. Mm-hmm. non mm-hmm. waxuma gis. nga dégg. dégg réputation réputation loolu loolu leerul. ah loolu leerul. waaw ah, dégg nga loolu ah xam nga benn. dégg warul benn. Euh, comme la si bien dit. Monti euh, Monti waaw. Ah. bu dee moom mooy dem ngóora marsama ak ñun ñu yor soxna macha allah ñu kër ba mu fees mhm. Mhm. xam nga kon deuxième lay daw moom mhm. voilà très bien mais voilà très bien voilà sax sax voilà parce que noo partaga donc moo wax ne encore une fois c'est-à-dire gis nga dañuy faral di wax ne Sénégal du ñu sos dañuy yokk dee la yokkal nag ne la gis nañ ko ma Samba ak ma dem ak Ousseynou ak Assane nagam fekk xëy na kenn rek lañ ko gisal maanaam li ma la bëgg wax benn mooy su su soxna amee réputation boobu rek am na fuñ ko teg mais encore une fois loolu débat. Mhm. loolu débat bi débat bi mooy. Mhm. man dama gëm ne nekk jigéen yaa ngi dégg. Mhm. terewoo mu bàyyi digaloo mu def buy dem tàgguwu la sa kilif def euh, dañ koy lam-laamee te sañoo cee génn dama jàpp ne nattu yàlla la. d' accord d' accord Dieye jërëjëf. day am waaw nga dugg ci kër rekk ku ñu teg ci ruq mu toog yoru journal. boo ñëwee di wax sax dinaa la waxal ak madame. dëgg la nattu tu vois ce que je veux mm-hmm. donc man ma jàpp nag ne aussi pour répondre rek jox la kàddu gi du ko du ko faible ci këram rek dafa ñàkk fayda mais loolu des fois du nattu si c'est pas marabu te mais mais marabu nit marabu te bu jàpp ko sax nattu yàlla la. ayca Aziz ñu bàyyi la nga ñëw ci li ñuy waxtaanee mariage tardif la ñuy waxtaanee le téléphone est ouvert aussi bu Aziz daanale ngeen mën a ñëw euh, ñu waxtaanee ko parce que c'est très important mariage tardif jeunes yi gis nañ ci yu bëri. bu ñu amee ay vingt ans jëm kaw rek bu ñu yoree bu ñu yorul ñu takk. moo tax nag à côté. dégg naa ñëpp ci point bi ñu waxee. Mm-hmm. mais man nag damay ñëwaat ci beneen point boobu bokkul boo xamante ni bokkul ak yéen ci point yi ngeen laal yéen ñëpp. ayca avant tout d' abord damay profité Cheikh Diagne di la jaal sa yaay bi suñu borom bi jëlee fii mère Tunkara ak toute la famille Diagne. Mm-hmm. maa leen di ñaanal mère Tunkara yàlla na ko suñu borom bi xaaree ci àjjana. amiin amiin yàlla ko yàlla xaaree àjjana. Suxaat Sarr borom Canada tamit maa lay big up xam fa laay waxee. Mm-hmm. mooy de jours ñun marie yi man suy suis marie kii mm-hmm. c'est un célibataire. Mm-hmm. li nekk ci néegam nekkul sama néeg moo néegam moo gën a rafet sama néeg. est-ce que da ngay gis benn copine Safia mu ngi dëkk Almadi wala Nord Foire wala West Foire. li nekk ci néegam. Safia mi nekk madame jàlloo nekkul ca néegam. dëgg la te ñu ngi fanaanoo. ñu ngi yeew di sangu set ñu ngi yeew di def lii marié yi di def ci maanaam yéex a sëy bi am na ñoo xamante ni fan lañ ko teg xam fa lañ ko teg parce que kii bu caméra yi fayoon xam la la may wax mais def yëpp maa ngi koy def. Mm-hmm. yaa ngi fanaanoo maa ngi fanaanoo gat sa gat sa damay toog ba mu neex ma ma takk jabar léegi day tax bu am 60 ans war a takk fekk da bari jeex. ñaanal loo ma jàmm de. est ce que yow de exemple non maanaam exemple laay joxe quoi. parce que tey ji am na ñu bëri ñoo. xamante ni exemple ci yow lañ koy jël ndax yaa fi célibataire ba pare yéen seen génération li seen génération da ngeen amoon génération boo xamante ne am na foo xam bu ngeen fa tollee bu ngeen takkul jabar rek vous vous sentez un te buñ takkul ñu takkal leen. waaw mais ñun suñu génération da ngay gis kii man dëggkat sabar laa damay wër di wayaan kii c'est un transitaire fu mu mën a yoree sa jabar ak ay doom. moom war na faa war a mën a yor jabar ki i doom. Mm-hmm. est-ce comprendre ñeneen ak ñeneen ñu ngi yàlla mu ngi leen di dénk xew affaire bi nekkatul ci koom-koom ci volonté la ak nga xamante ni la fi maam yi bàyyi te ak nga xamante ni yow ba nga juddoo sa ndey ak sa baay ba léegi yaa ngi ñaan yàlla màgg ba fonder une famille. ndax kii li muy fonder famille mu ngi xëy di joxe dépense mu nga gisee ma koy jox exemple ndax moom moo fi toog. Mm-hmm. te moom mooy célibataire. Mm-hmm. moom mu ngi xëy di joxe dépense këram. kumpu ma mu ngi xëy. di defar lépp gelam bi lu ne la koy defal <laughs> non dañuy wax célibataire yu bëri lu may defal sama jabar yëpp léegi instant man ñiy doxaan ñiy doxaan ñoo gën a ñeme kër ñi am jabar la papa yaay laa ilaha illallah. ah te dëgg ñuy doxaan. li muy ñàkk ci jigéen li muy ñàkk ci jigéen ba takk na ko. mbaa yaa ngi ciy seet yàlla li ngay wax. li ngay ñàkk ci jigéen. li ngay wax ndax yaa ngi ciy ko parce que. <laughs> li ci jigéen takk na jigéen. côté bi ngeen développé nga taxaw di wax de. côté bi ngeen développé. Ah, man côté bi ngeen développé. dama ko nangu mais tamit beneen pante bi tamit mooy pante bi ma nekkee nii mooy ñëw war toll ci ut jëkkër di topp mbaraan bi nu ñu amee jëkkër ba pare argent xaalis boobu dafa gaaw te boo xasee ba taam loolu moo lay may nga dem ba am jëkkër di mooy sa jëkkër mm-hmm. boo taamee tey jii bu ci diw ñëwee bàyyi fi deux millions wala cinq cent mille ba pare ñu fi dëkk yëpp far yooyu lañu am ay faru kilifa far bu mën a ñëw def deux jours ci kër gi tàggoo weekend mu ne séminaire ñëw gàtteel la kër gi buy ñibbi bàyyi la fa enveloppe kaki léegi boo tàmmee loolu est-ce que ah, est-ce que dina jar après nga naan uti jëkkër hmm? yow bu fekkee xale bu góor nga dem ci géej gi na ba mel ni nga war a mel wala nga taxaw ci seetu wóoru sa profil ba mu rafet xoolal foo fekk célibataire day civilisé xoolal sama sikkim ni mu développé xoolal ki ay sikkimam ni mu arrangé <laughs> est-ce que comprendre nga. waaw ah parce que looy def ci yow. waaw man jar naa man dama war a foofu sax d'accord ma ak. foofu sax d'accord ma ak yow. est-ce que comprendre marié yi nga ma waxee eh, bu daw affaire yi dama ne. yéen ñi ngeen xamante ni toll ngeen ci uti jëkkër dëgg leen jëkkër yéen ñi nga xamante ni toll ngeen takk jabar takk ji leen jabar li ngeen di gën a dem déegi daa gaaw de tàggoowul de mawti fu mu ko fu jotee da lay yóbbu. Mm-hmm. te nag li gën a bon mooy nga dund ba am vingt ans jëm kaw bàyyi woo fi takkandeer bu bu ñu lay xoolee nit takk jabar say say trente ans amul doom mais bu kooku lan nga ko waaw jabar ji bu bu deewee ku góor ki bu deewee wala ki bu deewee dinañ ko xoolee jëkkër dinañ leen kii de jabar diw la woon. keneen jëkkër diw la woon day dem sëy keneen. mais mos am jëkkër. Mm-hmm. li ba dinañ ne kii kat jabaru diw woon yéen bu leen jël célibataire yi jëlee ko dëng mm-hmm. bu leen def lool célibataire bi ngeen bëgg a jëlee parce que da ngeen di libre yéen lan mooy jël lan mooy jëlee célibataire dënn non parce que yow munti yow waa yow yow xam nga sànq yaa ngi naan en fait bul bul bul bul canaliser ci yow quoi mais dañuy waxtaan dans le cadre général lan mooy jëlee célibataire dënn <laughs> jëlee sa mu eh, est ce que xam nga ni man bi may takk jabar takkuma ko sama propre gré mhm. exemple bi dama koy retrouver sam ci loolu laay bañ nag non parce que non xam nga ma a takkuma sama propre gré mhm. yow umpul la man bi may célibataire maa la gënoon weex man munti cinq xale bu jigéen laa ëmbalandoo ci benn at. <laughs> Ah? ah waaw. sama papa man bi may taxal jabar mu may fekk may répété Abdou Aziz. waaw dama dama ma déglu man bi may takk jabar mu may takk may eh, takk xalaat moo sa dama takkal. Safia Safia. man pare naa. moo si Touba. Brosse booy toog man dem naa sama. dëgg la Zizou. Zizou. Zizou. Barki Cheikhul Khadim li mu wax nii li mu wax nii dëgg la. ba dama ne man weddiwuma mais dama laa bëgg a laaj. ci benn rapport dimbali ma ngir yàlla ma laaj la. en 2017 mais si su dimbali ma ma laaj la. chaque deux jours non non mais du cinq du cinq non non non du cinq. barki Cheikh Khadim cinq la kenn ku ñaar da ngaa gën a non zizi daal vraiment non non non vraiment. yow maanaam comme <laughs> célibataire mënuñu ma cee wax. mais sama xarit la sama xarit la. célibataire. wallaahi wallaahi. visu ma benn at. wallaahi xale bu jigéen laa ëmbalandoo. visu. ma koy doom yoon kii mooy taxaw di ma jox leçon de morale est-ce que dégg nga comme maanaam bi may dem ba bi ma demee nag wallahi da ngay changé bi ma demee man bi may ba yàlla ngay dugal ci comme ay xoolal sa diggante ak sa diggante non non kii bul jël yàlla di ko vraiment non non il a dit ko doxal déglu dafa ne ba mu demee ba xam ne. yow man waaw waaw ma ak yow lu tax waaw ma ndax. li ba àll waaw man man damay may ma yeggali ba àll waaw. non parce que tey bi ma tollee. man bi may takkal jabar xam lan laa ci dem toog di répéter. sama benn frère. waaye Zizo loolu ndënd yi la. njàkka woo wala li nga wax sa ndigg li nga wax ndax wax nga sa ndigg sax non non dégg naa da nga may wuyu Zizo. non amul sëgg ak kab bi. njàkka woo ma ne ma félicitation man ma félicitation lan. nee ma sa papa takkal na la jabar man leen merci. yow sa papa la takkal na la jabar Zizo. wallaahi naa si ni laa tam sa papa la eh, takkal na la jabar ma yeggal sama répété. Zizo. mais wallaahi naa si. damaa dégg léegi nga tudd Serigne Zizo damaa dégg damaa dégg léegi. non kii yaayatul Abdou Aziz déedéet dem ñemal ma kooku. kii yee trop sax lañ ko doon waaw yéen loo xamante ni c'est mon passé. waaw Zizou mu jàll. Zizou waaw mais loolu ma dama ne. <laughs> yow bi nga demee ba maanaam yow. ndax tudd nga fi ndikk <laughs> ñu yuuxu la nga daw génn donc dama lay laaj ak daal yu war a suuli dama lay laaj maanaam ab xaalis la ndax rafetoo moom duma la ne ab xaalis <laughs> non non non ni nga rek Zizou wuyu ma Zizou Ziizou voilà dama ne ndax ndigg la wala de xaalis la wala lan la dama lay laaj. dama waaye leer waaye leer nañu du ab taal. waaw waaw non non yéen a ngi may. père père père tard la rey ko non non non non da ngay non Sofia ah, vraiment yow da ngaa mën a tooñ quoi Sofia. man nga war a mën a tëj du taar xoolal. non non non pata bu mel ni jantal. Oh, oh, oh, fan nga war a mën a tëj du taar. ah dëgg la bàyyi jàmbur. Ah. mais fan nga mën a tëj du taar xoolal. bàyyi doomu jàmbur. 10 jours. Zizou. waaw waaw di shaming sax kenn ko fa nangu. nu la waay nu la yàlla bindee da nga ciy fier. li ma la wax wax wax. mais y a des gens vilains. y a des gens très vilains. Hmm, non mais il est pas. lii mu def de am na fa soo ko duggee ak sa bott yooyu. Hmm. dégg nga ak sa lii nga sol. Hmm. am na kër yoo xam ne soo fa duggee na salaamaaleykum ñu ne la ci biir. dëgg la barke Borom Tuubaa Mbàkke am na. parce qu'il est pas correct mais lii laa doon d'accord naa loolu parce qu'il est pas correct ah. ñu ngi nekk ci point bu am solo toogal toogal toogal. est-ce que mën naa dugg palais. waaw toogal loolu mukk jiin du dugg palais ba pare déchiré la. waaye yow. Euh, euh, on va on va y aller parce que moom dafa eh. nekkoon juste di expliquer. le pourquoi xale yi di yéex a takk jabar mu ne bàyyi rek et pour nekk rek pour nit ñi comprendre <laughs> euh, pour ne pas entrer dans la vie privée des gens un peu dafa ne moom ni mu meloon ba mu nekkee xale. moom ba muy takk jabar du woon coobareem papaam moo jël décision takkal ko jabar ndax yoon bu mu jëloon baaxul foofu la toll et c'est très important nga gis sa doom nekk si yoon bu baaxul uh-huh. nga wàññi ko xam ne kii bu ma ko mayul soxna kat mu toj dëkk bi nga may ko soxna mu sëy too parce que parce que dafa am ay secrétaire yoo xamante ni mm-hmm. yam nañ am na yam nañ ci liñ bëgg a waaw am ay célibataires yoo xam ne dañoo jéggi dayoo. moom ci ñuy jéggi dayoo la bokkoon temps boobu. waaw moo tax mu am ci grade. est-ce que du moo feeñ. non non du ko feeñ lu passé la lu passé la non. li jàll suñu ginnaaw. ñun yàlla def nañu sax léegi ma am nañ maturité ndax xam nañu yëf yi boo ci boo ko toppee. Mhm. dalay lay tardé rek wante amul wutu kii. dëgg la maak moom koñ bu mës a am gel mm-hmm. am na fa gel mm-hmm. soo mësaan doxaan raq moom mooy doxaan mag. wala <laughs> soo doxaan rek parce que sa ressemble sa semble. <laughs> mais si tu vois <laughs> est ce que comprendre mais tey ji problème bi dafa nekk ci cadre que boo gisee may expliquer loolu. Uh-huh. parce que aw ma ci gêne. xam la moo tax amoo ci gêne mhm. c' est pas que damay encouragé ñiy seetaan mhm. wala ñu war a mën a suivre au contraire dañu war a jàng ci yow pour que comprendre parce que ma wax c' est clair et net bi may mhm. célibataire du fen yàlla na ma soxna sama soxna def nañ presque six ans de mariage xaw ma cinq ans te wallahi lazim je touche du bois yàlla ki ma comme jabar ah yàlla na mu suñu borom bi yàlla na mu suñu borom bi sàmm amiin amiin boo mooy kook bu nekkoon sama soxla keneen ku ti woon ñëw. Mhm. du ko dékku duñu yàgg. Mhm. ndax xam nga te jub nga jub goo xam ne. te papa doo ko mooy. te moo naa teg. sama loxo bi waat ko ni musuma ko mooy sama la moo tax. ndax man mhm. man comme su ma doon lekk nii. su ma ci suuree suur naa. man lu ma xas ba xam la moo ma jaaxal lu ma defagul te bugguma ko def mais lu ma bëgg a def te nam ma ko def dinaa ko def découvrir su ma paree je tourne cette page est-ce que nga télé wax su fekkee am naa gel na ma gel yi bàyyi sama jabar rek laa bëgg mm-hmm. ndax demul mm-hmm. dikkul mm-hmm. du ma fanaan àll du ma fanaan sama kër àll rek laay fanaan leer na kii chaque jour guddi ba guddi laay génn non non dafa xëy na artiste xëy na liggéeyam la man su ma liggéey guddi lay xëy na liggéeyam la je comprends bi damay nelaw tout à fait jour chaque jour laay tëggi mais chaque jour damay génn dama dem ba habitué ko ndax père may ngoone mi may dajal mu yëkkati benn dix mille may ma ci laay dépense suba est-ce comprendre ah, mhm. ma nekk artiste mu comprendre ma lool mais dama bëgg a yëgal ni jeunes yi mhm. mooy ab fo mhm. mooy maanaam comme du ma naan sàngara waruma laa fekk ci baar ba wala maanaam doo naan sàngara waroo ñëw ci baar ba di wax nit ñi naan sàngara man mi nga xamante ni dund naa expérience u trompé wala nekk di mooy wala di fooy sa jeunesse man maa lay ci fooy sa jeunesse ci wàllum sexe ak yooyu maa lay ñaan bu fekkee jeune nga te nga bëgg a mucc loolu j'appelle page boobu ndax man mi ko dund subir ko. Mhm. coono waxuma la laaxaan si li ci gën a métti mooy defee gi ngay teg sa yaay. Mhm. ñu lay laaxaan si. man chaque deux jours man dama dindi woon sama puce WhatsApp complètement chaque deux jours bu ñu nee tiit ma dégg ñett caraxu meer rek. man ñëwati nañ. man famille la waaye ñoom lan moo leen xiif ci yow ñoom ak jigéen ñi. non non non di nga ba lan la lu leen xiif da ngay gis nit bëgg ko sa problème. damay père da am lu may taas. ay nit ñi lay gis dina bëgg. noonu la nit gisee di bëgg keneen mais juróom ba nga xam ne yow leer na la nekk. deuxième ba ñëw xam na ne am na foo jaar ak premier bi. de troisième ba ñëw xam na ne am na foo jaar ak deuxième bi. dégg nga quatrième ba ñëw xam na ne am na foo jaar ak troisième ba. père man sama programme yi ma doon tëgg samay gel ko doon tas di xeex père dama jantal xale yu jigéen ñi xam ne ñenn ñi xam nañ ci loolu <laughs> man pataabu saf laa pataabu jantal laa <laughs> barki Cheikhul Khadim te yow bis bu la yàlla ba seet la sa kër caaroy su ma ñibbisee. waaw xale problème doom bi yaa ak a fiir nag. non yow. yow mi instant li muy wax ni sa xol baa ngi si ah, nga génn. man dëkku nit yi doom ba man bu ma sax sax bu ma erreur non non fiir parce que. Ah, première fois bi ñu bokkee gis-gis. waaw waaw waaw. booba ah. booba da da nga tàngoon quoi da nga fiiroon. ba léegi ku fiir la. mi ngi barka borom Tuubaa. moo ngi fiir mais père a day a jox ko ñaareel. mën a jox ñaareel. man kay damaa xam ne ginaaw ndox du bàyyi yoon <laughs> ndox du bàyyi yoonam te lii waxin la rek li nga génneel soow laa mi wax ko ouvertement nit ñi dégg ko waaye ca suuf <laughs> waaw après man li ma la c'est clair amoo ka am ne sa oto nga ko nga teg ko fi man musuma mooy suma jabar ah de kon alhamdulilah rabbil alamin kon mu nee naa la man dox naa sama ndaw toog man def naa lii ci at nga ko def naa li def lépp ci bi may xale hmm. bu dul woon télé bu caméra yi faye ma wax man man at laa xam jigéen ak ci foofu li ma ci def yëpp bu ko maanaam soo tëggee ba pare ñu topp la. bu ko fi mais mais gis nga ne gis nga ne amul mucc. moom waaw bii moo gën continuer foofu noonu Aziz. amul benn njëriñ parce que yow yaa ma gënal booy yi ne tekk di. waaw waaw waaw waaw te xam nañu jigéen te xam nañu jigéen. waaw xam nañu jigéen. ah, ah, ah déedéet man daa ñaaw ko. mais lan moo si ah, leer ah sañu ma yeggul kon kan laa wax jigéen. sañu ma yeggul kan laa wax. ki nga dama ne kan laa wax. sa digganteeg yàlla kan laa wax. yéen ñëpp seen muti muti ma xamul ma tax waxuma ko de yéen lay jàkkaarloo waxuma ko de ñemewu ma waxuma ko de ndax dama koy jàppe ndax munti dafa daw dama koo laaj mu daw su ma laajee nga daw di ma indil yàlla yàlla ci la mais day tëj waxtaan samay papa xam nañ la waaw. <laughs> moo ko gën a tojee. dégg nga dégg ma wax la dégg dégg dégg. Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. ak Moussa Ndiaye. <laughs> ak sama papa. dama ne ñoo bokk ndey ak baay. dama ne Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. Eh, eh, eh, mbokk lu fi jëme génne pour nga bañ a wax. non dinaa wax de. mais mais nanguwul ma nanguwul ma bàyyi. non père ci Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. duñ la bàyyi xam nga la moo tax mais wax. nanguwul ko père bàyyi booy. Ah. demal non non mais ba léegi dara amul. jóg naa ah. non non pena du ma wax. do mais dangaa wax ma bëgg la eggalee bëgg la wax loo xamul. ci Maguette Ndiaye jox xam naa loolu dama ko bëgg a dama tuddal sama xol. affaire mbokk la fi indi pour ñu bañ a wax. du loolu de mais amul benn bopp déedéet déedéet déedéet déedéet non non non non xaw ma saala bii non xaw ma saala bii non xaw ma saala bii Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi nga ma laaj. waaw mais nit soo ko tuddee ba ab sëriñam. war ngaa déglu mu wax na ko. Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi moo ma dugal ci média. dëgg la après ngeen waxtaan. moo ma njëkk a jox micro Envie FM. dëgg la dëgg la waxoon nga ko fi ñu ngi koy fàttali. Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. Mhm. Aziz dana bëgg muy koo xam ne nag doonoo bokk dëkk ndax Lambaay la dëkk. Ngalbaan Sall. Kumba Ngalbaan mooy yaayam. Mhm. tuddee na ko doom. Mhm. Kumba góor gi Serigne Ndiaye ñoo ko bàyyi mooy way juróom. mooy sama ak ŋaamaankat la woon boo xam ne kilifa yu bare bari ñu ngi ci Pikine ñoo xam ne moo leen ŋaamaan am déet. naamaan waxoo ci kii mooy. maanaam naamaan mooy la. mooy jox naamaan am am kii dugal dugal néegu góor. waaw waaw waaw mais nag ak paaka. oui oui ak waaw ah, mais ak paaka. c'est moins compliqué que waaw ak paaka. waaw da ngay toog ci gën gi mu daj. même bu dee jaaxle sax dugal néegu góor. waaw ñu remercier nos amis internautes ils sont très nombreux à nous suivre sur YouTube jërëjëf. Mm-hmm. kontaan nañu bu baax a baax instant yii dañoo déserté euh, Facebook bi ñëw YouTube. donc kontaan nañ dafa mel ni affaire fii la gën a jaxee euh, Zizou euh, euh, nga ñëw un peu changement bi Aziz c'est-à-dire expérience bi nga am ba tax sa papa déjà takkal la takkal la soxna muy muy muy décision boo xam ne jógewul ci yow mais ni ñu la déggee nga wax bokk na ci li nga xam ne moom moo la sauvé ko fi mhm. keroog hmm? il faut prendre bonne décision moom les parents décision bi ñuy jël parce que tey jii am na doom yoo xamante ni dégguluñ seen waajur am na waajur yoo xamante ni seen doom yi faalewuñ leen mm-hmm. mais nag ñun yàlla daf ñoo dimbali ba ci ñun ñemewuñu suñuy waajur mm-hmm. man ci waajur yooyu laa bokk mm-hmm. man ba li may amee dix-neuf ans je me rappelle sama yaay daf may dóor man demee ba nekk ponk ponkalum góor nit ñi di ma seet suma kër mu nekk fréquentation sama yaay su ma bëggee toroxal guddee baay bi mu tëdd guddi mu takk ma dóor ma parce man ci yariñ googu ci ñun ñëpp ki ba ci kii nii seen kër dama fa daan dem mais moom it ñemewul woon ay waajuram ndax tey jii responsabilité boobu dafa bokk ci waajur yi li war a fay seen doon am na waajur yu bëri ah, yoo xamante ni am na waajur yu bëri yoo xamante ni benn laa juddoo mënuñoo waxtaan am na waajur yu bëri yoo xamante ni seen doom bu waree takk jabar non seulement il vont pas regarder le choix de leur fils mhm. pour lui dire que non diw da ngay dem takk doomu diw demal nga seeti ko ngeen jéem a labantante ba bër jour sàngam dañ leen di tàpp bu fekkee du paa yu tàng yooyu dañ leen naan demal nga labati ji doomu diw bi ah xoolal doomu diw bi kat moom de laal tànnaloon ba xam mais toog rek ñu ne la jëlal man dama toog ah du ah, kii choix du dara parce que ki la jëlal xam nga ko ki ma jëlal moom laa bëggoon waaw ndax dañoo génn huit ans xaw ma douze ans kon sa choix la douze génn maa ko tàgguñ ko bañ ko koy may léegi biñ ma ma toogee parce que bi may def samay toj toj waaw sama papa dafa ne doomu jàmbur bi kat lu yàgg ci kër gi ak ni mu yàggee bëggante ak Aziz dund fi dara lu ñàkk fayda moom ëmbalu ma ko woon bokk woon ci ëmbal ya est-ce que comprendre sama papa dem takk mu jeex ak mais góor gi daa daw bi muy daw solu ti daal d'accord jërëjëf daa daw ma ne bi muy daw solu ti daal léegi ci yow 88 628 89